ilaha illallah aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum mbokki murid yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare jiital si nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ñaanal ko saa borom mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ba mbooleem naal yi nga xamante ni naal na ko yéen a koo liggéeyal maam ju tedd ja baam ba saa borom dolli ko kattan ak man-man dooleel ko defal ko tawféex ba ni mu ko bëggee mu defe ko ni noonu lañ koy ñaanalee Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall Menda suñu borom gën ko fee yàggal te wéral ko ba mbooleem digali juy ko sëñ Bàmb yëpp mu mën koo jëfee ni mu ko bëggee duñu ko digal ñu koy defee ni mu ko bëggee di ko ñaanal mbooleem muri di mbooleem jullit yi ak ku leen yéen a jàmm mbokk yi ñi ngi fii nga xamante ni mooy njaareem murid yi ñi ngi kër seex Baye Fall yi ñi ngi Kawsara buñ ko waxee nag xel dana dem ci bis bii nga xamante ni mooy ndogu ajuma yi waxatuñ sax ndoxu ndogu ajuma yi waaye bis bu jot weeru koor bu jot xel yëpp dana dem bu alxamis jotee fii nga xamante ni mooy njaareem fii nga xamante ni mooy kër seex fii nga xamante ni fi la jàmbaar ji nekk ànd kook njabootu Cheikh Serif Assane gi muy Serigne Amdi Khady Fall yàlla na fi yàgg loo téwér ànd kook njaboot gi ànd kook taalibe yi ñoom ñëpp ñu dajaloo doon benn say lenn nekk seen biite mooy fexe ba ndog yi nga xamante ni ñu ngi koy waajal ko yóbbul Sëñ Tuubaa ni noonu la ko sëriñ bi bëggee noonu lañ ko fas yéene di ànd ak yéen saa su nekk ajuma bu jot fii si njaareem kon niñ ko defee ñaar yi weesu tey nag di ñetteelu ajuma bi di fukki fan ak juróom benn si weeru koor kon nañ daal di àndandoo tàbbi ci biir ñu wanati leen li nga xam ne fii lay xew fii si Kawsara saa bu ngeen ko gisee dangeen koy xemmem nañ àndandoo daal di tàbbi si biir jaa ngeen jëf la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah faa laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha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 fa la la la la ilaha waaw kay mbokk yi jërë ngeen jëf si topp ki nga xamante ni yéen ñu koy topp boobaak léegi comme niñ koy amalee ajuma bu jot nag toog ki nga xamante ni moo yor kàddu kër gi muy Baye Moussa Seck seq ak moom ay waxtaan ci li nga xamante ni mooy liggéey bi mbo mbooloo mi nag ak ñiy seetaan ñu bari seen xel bu buñ gisee liggéey bu rëy bii nga xam Sëriñ Amdi Xaadim mi ngi koy liggéey seen xel day laaj kan mooy Sërif asan tey moom lañ bëggoon Baye Moussa Seck dimbali ñu si. kan mooy Sërif Assane dey lu jafe la waaye lu yomb la ndax moom de moo waxal sëñ Mbay Géey ca taw féex ni ko mbay mu ne ko faal mu ko xam nga Adama. mbay gi ko waaw Fall xam naa Adama ni Fall Serigne Assane Fall jël baaraam mu tedd ba rëkk ji dënd mu sell ba ni ko mbay mu ne ko Fall mu ne ko may Adama maa jur ñëpp moo tax yërmande ja bari kan mooy Serigne Assane nag ci xaminu sayir Serigne Assane Fall ak Serigne Modou Moustapha Fall mënoo xam ne kenn ci ñoom te xam ne waali woo moroom ja ndax ñoom ñoo bokk maam Cheikh Ibrahima Fall ak soxna Atou Syll bi nga xamante ni saa war naa dugal diggante bi ceg gàttal maam Cheikh Ibrahima Fall dem jëlleerlu Syll ci ndigalul borom Touba Xaadimu Rasuul fekk fa soxna Xayta Fall bàjjanam muy wëjul son ëttu sil bokk ak maam Amadou Fall Rokhaya ndey ak baay fekk fa ñaar muy son ëttu sil ak son awa démb sil dafa dél ci waa Touba ba nga xamante ni saamam Seera Fall ñëw na ci borom Touba Xaadimu Rasuul ne ko Mbàkke dama faa fekk ñaar mu doon kenn ma xam ne sa joxoñ mbaa waaye ginnaaw ñaar laa ba fekk tànn ci des te man Mbàkke du ma tànn yaa may tànnal saamam ci la faal ni ko fekk naa fa ñaar xawa ak ay sëtu mooy soxna Awa demb Syll ak soxna Atu Syll seen ko baax ki ne ko ma laaj ko sa ma laaj ko sa ñu néeg bi rab ne tuut mu ni tëll ne ko saa borom nee la sëriñ Assane Fall ak sëriñ Moussa Fall moom yàlla leen tàllal ndey sëriñ Tuubaa ni saa borom na xay satul la mag ñi nag daanañu tànn soxna ci walbalu tey bu yàq rujoo nabatoo waaye biis ni rab bii ci ndigalu yàlla sëñ Moustapha Fall ko am ak sëriñ Assane Fall sëñ Tuubaa ni saa ne ay sëtu la kooku muy niigum ndeyam Serif Assane Fall gane jamono Tassinère Gandiol 1896 bokk ci maam si Ibrahima Fall yu mag yi ca di ba demee ci géej gi ba ca déwén sa borom Touba ñibb dal jàng borom Touba dalal ko mu jàngi ba luwaam yegg saamam si Ibrahima Fall yóbbu ko benn école franko arab bu ñuy wax école madrasa ci Ndar moo doon école di fils de chef école de fils de chef boobu tubaab yi dañ daan jël doomi buur yi di leen ci yóbbu bëgg jàng bañ jàng loolu moo tudd otage ci tubaab ñu dem ko école de sotage diplôme yi génn yu jëkk ya mag ñi xam lan mooy njariñu njàng ca kilifa yi jële seeni doom yóbbu ca jële maam Seydou Fall yóbboo Sërif Assane Fall ci école de fils de chef boobee ca Ndar Sërif Assane Fall jàng fa ànd ak rakkam di baax ji suñu Aliou Fall Mbawar booba école bi da ngay am brevet d'études brevet supérieur élémentaire ba français wala nga am bu arabe sëñ Assane Fall amandoo ñaari bëri wi yëpp ci menn at 1919 ba mu génnee am ñaari bëri wi yooyu gouverneur général ni ko dama lay def chef de mu ni ko nag ba may jàng ndomb ak tànku adduna taxumaa jàng ndigalu sa baay Cheikh Fall ma taxan jàng fekk ci Serigne Assane Fall fekk ci maam si Ibrahima Fall nee nee ma ne dara du asaar fii ci kër gi maam ci Ibrahima Fall bi mu ñëwee njaarim dafay sañ ci ñaari kër tudde génn kër ga màkkatal mu karam mooy màkka loy génn kër gi madinatu munawara muy kër gii nu ne mooy ñaari kër yi fii nu ngi madinatu munawara màkkatal mu karama nga ña ca saw saamam ci Ibrahima Fall ñëw 1916 sañ ci madinatu munawara 16. 17 18 19. mooy ñetti at sëñ Assane Fall am ñaari brevet titre élémentaire yu français ak bu arabe fekk maam Serigne Fall fii. ci Madinatu Munawara ci njëriñ. Baye Adama Diop nee na bi mu ñëwee da ko ni a Serif ne benn ñetti xeeti ñam ne daal di ñëw toog daal di nuyoo. a ah, ni ko sëriif mu ne ko faal mu ne ko mu ne mag sëñ bamba danoo demoon jiwaaloo tàmbali fa ab liggéey liggéey ba yëggul ni sëriif mu ne faal mu ne ko ñëwal yëggali ci liggéey ba boo demee jiwaalu nag sën ya ca ginnaaw dëkk ba nit ña defuñu ko fa yàlla ko fa boole suuf sa wàcce cërë xërëm ya dëkk kenn mën leen faa waaye dee leen randal ba sa liggéey yegg daal summi ay yére ni xëpp Serigne Assane Fall Baye Adama Diop moo ma wax fii ci kanamu jàkka ji waxtu takkusaan sëñ Assane toog ci photo yi bi nu toog ci suuf boobu sama sunu diggante Serigne Assane matul ñetti mètre nee daal di summi ay yéeri xëpp ko nee ba nu génnee sëñ Assane ni ko Adama Diop <coughs> mu ni ko faal mu ni ko yéeri yii bis bu ko yàlla dogalee nañ ko nañ ko booleeg man suñ ko booleeg man. waaw nañ ko booleeg man. fi bàyyi ko. même fi bàyyi ko. 1975 Baye Adam Diop wax ma loo lii le 6 juillet 1980 Cheikh Abdou Khadir Mbacke baax ma ñaareel Serigne Assane ba noppi ñu jël yéere yooyu ma tëj ci sama bët ñu boole koog moom ci sama kanam. est-ce que. kon euh, de Serigne su wér Serigne Assane Fall. sanc Ngeeñeen 1919 20 21 22 23 24 mu mu sanc jàmm gën ci ci yii ci man ningre làng ak canaba mu sanc man ningre daara yi Ngeeñeen di dox Serigne Assane Fall di ko liggéey di teg ci maam ci Ibrahima Fall mu di ko teg ci loxol Serigne Touba 1924 mu sañ ci daara jàmm gën daara jàmm gën di dox ngeeñeen di dox Serigne Assane Fall di liggéey di teg ci loxol maam ci Ibrahima mu teg ci loxol Serigne Touba 1926 mu sañ ci daara wéri ngara fii ci wetu Touba Fall diggante Touba Fall ak Bayti Dia liggéey fa ab liggéey fekk maam Cheikh Fall jox ko ndigal ne ko sama daara ja ca diggante Touba Fall ak Géb demal nga sanc ko mu ñëw nag yem fii ci pël gii ñuy wax wéli ngara am ñu koy wax jëm wéli benn la sëriñ Assane Fall sanc fa ba mu liggéeyee liggéey ba yegg mu sëf ko ci gëléem jox maam ci Ibrahima Fall ma teg ko ci loxol borom Touba Xaadimu Rasuul sunu waa ji nag daa yàgg am doole. ba doolu amee maam ci Ibrahima Fall nag loo ko mos a jox laaj foo ko jëlee al sëriñ fu mu liggéeyi lii. ñu ne ko daari ci jëmwel yi pël gu ñu wax jëmwel yi ci diggante Touba Fall ak Bayte Dia fa la ko liggéey mu ne hee hee sëriñ ca kanam sama daara jaja diggante. Touba Fall ak ak ak ak ak gébb laa muy muy koosare gii sërif ca kanam ca kanam daara yaa nga ca kanam baatum ca kanam boobee sërif Assane Fall sëf na ca gëleemu tukkal bu fees del doo ko bàyyi moo duggee ngonk bàyyi taale géy ne ko boo demee joxal ma ko Sëriñ Faal ne ko maa ko màggale baatu sërif ca kanam bi Baye Modou Gueye Ngonk ñëwee lii Baye Cheikh Tall Gallo moo ma ko wax ceetum solu kunta Mbàkke Baye Cheikh Tall Gallo mu ni ma maa mu ngi fekk boobu guddi bu doon ñetti xaaj ñaar ña jàll na nee muy bës seera faal di ko bës nee ba yàgg mun ma Cheikh Tall man ko faal muy demal xool ma biti ba ne ba ma ñëwee fekk ku yësal gëléem gusuf ba diis mu ne ma kaw sara laa jóge Sërif Asan Faal moo ma jox gëléem tukkal gii ak sëf bi ne da koy màggale baatu sërif ca kanam ne ba ma ñëwee ne ko fekk naa ca ci ma dey ko ñuy wax Moodu Géey mu yor gëni mu tukkal ko sëfam ne Sërif Asan Faal ko jox ne da koy màggale baatu sërif ca kanam ne ma ne waaw kay mën ma Moustapha man ko Fall mu ma dellu bës Cheikh Ibra Fall di ko bës di ko bës ba yàgg ab diir ma ne Cheikh Tall man ko Fall mu ne ma dellul seetal mu biti ba dellul doom seetal mu biti ba ba ma ñëwee ma gis ko taxawal ñaari yi yu yoo xam ne bu ne toll na ni gëleem ma ne ko foo jógee mu ne Touba Fall sëñ Moustapha Fall moo ma jox ñaari banjooli yii ne ma demal joxal ma ko Cheikh Ibra ma ñëw fekk ñu fatu mani naa ni ba suba gëléemu sëñ Assane Fall ga ak ñaari banjoole yu seen taa Fall ya ñoo fanaan keru cëp cëp ñoo daj ci penc mi waaw ne ba ma ñëwee ne ko fekk naa ko yor ñaari banjoole de Fall ne sëñ Taa Fall moo ko yónnee jóge tubaa Fall waaye daa fekk ñu ngi fàttali ni ndawul si hôtel defoon bàyyi Cheikh Tall Gallo nee na ni mu tëddee mooy mu di ko bës dañu bëreet daal di aj daal di aj loo koy daal di a doom ñaari doomi ëttu silli yi ndaw soo ngóoral soo ngóoral <laughs> yaa ah? leer ñaari doomi ëttu doom ndaw soo ngóoral mu daal di sanc waandu waawa muy daaray maam Cheikh Fall joo xam ne déegu waandu waawa fa neen bi ñuy sanc waandu waawa nag Cheikh Mamadou Lamine Baara moom borom Touba Xaadimu Rasuul sëñ Amdi Xaadim mii mooma ni moo joge xewar kër sëñ Fallou Ndiaye xewar nee na bi mu ñëwee ne ne daara ji nu mu sanc bi nu mu tudd déy ñu ni waandu waawa mu ni fii mooy kaw sara déy fii mooy kaw sara déy fii mooy kaw sara déy baatu kaw sara boobee Cheikh Mamadou Lamine tuddal Serigne Assane Fall moo tax dëkk bu a Assane Fall sanc di tudde ko Kawsara ngir war maa ne ko Cheikh Mamadou Lamine concert googee 1927 at mi fi sëñ bi bàyyi ko la ko maam Cheikh Fall sëñ waaye daara Cheikh Fallawal ñu dox Serigne Assane Fall di liggéey di ko teg ca loxol magam ji tedd ja Cheikh Modou Moustapha Fall ñetti daara yëpp di dox ba 1957 waaye 57 nag am na sëñ boo ko mag 1950 Serigne Moustapha Fall at mi mu fi bàyyi ko ba ñu gàmmoo ba noppi la jox Serigne Assane Fall ndigal mu sanc Kawsara Fallu Kees Serigne Assane Fall sanc Kawsara Fallu Kees ci ndigalu Cheikh Mamadou Moustapha Fall Serigne Moustapha Fall doog a fatu. bii ji Thiès 1957 mu sañ ci tawféex tawféex a ngi ci ci diggante Darou Rahim ak Gébb tawféex a ngi foofu. ci ndigal si Moussa boobu dem na. boobu genn benn magum pël ba ñuy wax Baye Souley Koumba Dala moo jël suuf sa jox ko Serif Assane Fall ni ko may na fii liggéeyal yàlla. ba mu ko jógal sëñ Fallu moo ñëw ni fii lii tawféex la sëñ Fallu ko tudde tawféex te sëñ Baara Kawsara benn baat la ci alxuraan inna ataynaaka al Kawsara ñëwatul mufrad la sëñ Baara sëñ Mamadou Lamine Baara moo ko tuddal Sëriñ Asan tawféex sëñ Fallu ko tuddal Sëriñ Asan te moom benn baat la wa maa tawféexa illaa billah ah méngoo Serigne Assane Fall mi dem ba 1968 mu mu gor mu gor Daaru Bayre yeesal Daaru Bayre. Daaru Bayre Géej ak Daaru dugub ju bari jox ko sëñ sëñ Fallu wàcc ab liggéey sëñ Assane bayaat ko mu toll na mu tolloon nuyoo ko sëñ Abdou Lahad 1969 moo tax sëñ Abdou Lahad su ko daa wax kooku kooku dugub jeewaay ndax bariga ndax bariga ba ba nag 1974 la la la la ndogu yi Thiès ñaar fukki ndab ak ñeent ci déwén mu doon xalifa général Baye Fall 1975 kër gii mu di ko fi togg bis bu ne ñeent fukki ndab ak ñeent ba mu demee nag doomam ju baax ji daal di lu waay yokkul yaa ko wàññi mooy sa ñëm di Xadi waaw lu waay yokkul yaa ko wàññi waaw daal di ko togg fukki ndab ak ñaar barkeelu ko ci liggéeyu maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Amdi Khadi Fall waaye benn bis ko togg daal di yéeg ba mu doon ay nangami téeméer tey nee amulu ko ab limite loolu mu ay muy muy ay téeméer téeméer kon sëriñ Assane Fall loolu bokk na ca muy jëmm joo xam ne daal teel naa am xam-xam teel naa am ñaari diplôme 1919 le diplôme ci France ak ci arabe te itam 1919 la tàmbale am daara di ko liggéey di ko teg ci loxol waajuram moo teg ci loxol Sëñ Tuubaa 1924 mu amaat daara daara dox mu di ko liggéey di ko teg ci loxol waajuram mu teg ci loxol borom Tuubaa 1926 mu amaat ñetteelu daara di ko teg ci loxol waajuram mu di ko teg ci loxol borom Tuubaa Xaadimu Rasuul kii moom ku teel a liggéeyal bi la. waaw koy jërë ngeen jëf mbokk yi si topp bi ngeen ñuy topp démb ba léegi. démb ci ngoon la ñuy tàbbi fii nii nga xamante ni mooy njaareem wan nañ leen li nga xamante ni moo fi xew ci guddi gi yëpp gàtt yi ganaar yi matt mi ak mbooleem loo xamante ni bokk na ci wàccaay si ndog yi nga xamante ni Serigne Amdy Khady mi ngi koy togg di ko yóbbul Serigne Touba waaye biñ xëyee gis ngeen muri yi teel nañoo xëy si si liggéey bi ñu ne si waañ bi wan nañ leen la nga xamante ni noonu la ñuy waajalee ñam yi waaye ñëw nañ itam si biir kër gi fii ki nga xamante ni ajuma bu jot moom la ñuy booleel muy mu saa Seck tam yor kàddu kër gi waxtaan nañoo moom waxtaan wu am am solo ci kii nga xamante ni nag mooy Serif Assane moom mi nga xamante ni moo meññi Serigne Amdy Khady Fall waaye gis ngeen tembe fii ñu taxaw nii jamono yi ñam yi noppi na ba ñu ngi lal lal laltu yi ngir fas yéene waajal ko comme ni ñu ko doon waajalee fii ndab yi tege ko nii kilifa yi ñëw gis ko ñaan bu ko defee ñu daa di ànd ak yéen topp convoi bi jëm fii nga xamante ni mooy tuuba fii nga xamante ni fa la Serigne Mountakha Mbacké nekk ñu jébbal ko ndog yi kon nañ daal di àndandoo seetaanandoo loolu jaa jëf. yàgg fii te ànd ku wér ak fekke ko tal sëriñ bi ginnaaw bu mi ngi nuy sant mi ngi nuy gërëm mi ngi nuy ñaanal ci liggéeyu màgg yu tedd yéni weesu muy ñaari àjjuma yi jàll ci sellal gi ñu ko sellal ak rafetal gën ko rafetal ak liggéey ba nu mu ànd ak ko yar ak ak teggin akuk taalibe dinu sant tam te dinu gërëm ci ndigal li nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké da ko koo jox muy kansul kitaab bi këru alquran ca université Cheikh Ahmadou Bamba bee nga xam ni yëg na ni noo moom noo bokk pos-pos ndax dafa wax sëñ Muntaxa ni ko dama bëgg ndogo yi dox liggéey bay dox kon nag yëg na ni jëwriñ yi nañu ko saa yu nu jógee fii ajjuma dallu gaaw muy samedi dimanche ñëpp ci lañu xëy altine ñëpp ci lañu xëy talaata ñëpp ci lañu xëy alors ba ñëpp ca la ñu xëy démb ca alxames gi la ñu xëy si waat ci yéwén a liggéey bii loolu nag jëw di ñëw nañu ko ne ko mboolem koo yilif ca kaw sara moy moy mooy rak mooy doomi rak mooy sa doom mu dib taalibe boo xamante ni yaakaar na kër gi ñëpp ñëwandoo waaye muy soppe muy wëllëre moo tax ab xarit ñëpp a ñëwandoo kenn benn coono boo soloon ci ajjuma ji keroog université bi ñëpp dun ñëw day mel ni sax keroog dañu ni ñi dëkk Touba bu dimanche nañu xëy waaye daa mujj waa Kees ak Ndakaaru Kawlax ñëpp a ñëw kon ñëpp la yéene faal kon nag sëñ bi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp léegi ñu ñu diglu nag sëñ làmp mi ndax sëñ Sidi Fall mii nga xamante ni moom la sëñ am di jox kàddoom maa nag sëriñ Fallu Fall rakkam maa nag ay rakkam ak i doomam dafa jox maam lam kàddoom goo xamante ni war na noo soññ war na noo digal li sëñ bi bëgg moo wax ko nu dégg ko te fas ko yéene jëfee. sëriñ Sidi ngi nuyu bu bu baax. nee ci kàddu si ngeen di xadi faal. sëriñ si bu mu sant sëriñ Touba ak maam Cheikh ñi muy liggéeyal. sant bokkam yii. di taalibeem yii. sant gi nag. sant gi nag. nee na am na fu mu tàmbalee. nee na am waaye amul na fu mu ndax bi mu ne cas liggéey bi. ndax mu ne cas liggéey bii. ajjuma ja njëkk. ajjuma ja njëkk. daja topp. daja topp. ba tey jii. ba tey jii. gis na ni. gis na ni. kenn ku ne. kenn ku ne. sa yitte. sa yitte. sa bëgg-bëgg. sa bëgg-bëgg. mooy basam rek. mooy basam rek. mooy ajjuma ju ñëw. mooy ajjuma ju ñëw. faaw xaja jàll. faaw xaja jàll. loola na nag gis na ko. cant gi nag. cant gi nag. li ko tàmbalee ci ñoom. li ko tàmbalee ci ñoom. jaarale ko nag. jaarale ko nag. mbooleem taalibe yëpp ci mbooleem taalibe yëpp. ak xarit yëpp ak xarit yi yëpp. ak wëllëre yëpp ak wëllëre yëpp. ndax gis na ni. ndax gis na ni. fenn fu nekk. fenn fu nekk. waaye jóge na fa. waaye jóge na ak jëfam. ak jëfam. ak wërsëgam. ak wërsëgam. ak teewaayam. ak teewaayam. boo doon xool sax. boo doon xool sax. day mel ni. day mel ni. lii ñu yor ñoom. lii ñu yor ñun. ñi ko yorul. ñi ko yorul. ñu ko gën a bëgg. ñoo ñu ko gën a bëgg. ndax kenn ku ne. ndax kenn ku ne. ci ñun ci nun am nga wëllëre am nga wëllëre wala xarit wala xarit boo xam ne boo xam ne lii rek lii rek moo tax mu ñëw moo tax mu ñëw kon sëriñ bi wax na ni kon sëriñ bi wax na ni sëriñ siidi mii sëriñ siidi mii daa jot kàddu sëriñ daa jotali kàddu sëriñ bi wax ni wax ni lii kat lii kat kenn ku ne ci ñun kenn ku ne ci ñun war na laa soññ war na laa soññ soññ gi nag soññ gi nag mooy lii rek mooy lii rek ajjuma ju jot ajjuma ju jot ñu daje nanu fi daje song ko song ko bu ko defee bu ko defee li sëriñ bi bëgg li sëriñ mu am ko mu am ko ndax bu amee lim boo amee li mu bëgg rek nu it nu am li nu bëgg kon sëriñ wax na ni ajjuma ji la jàll na waaye lam daan wax rek waaye lam daan wax rek lay fàttaliwaat lay fàttaliwaat xel woo gis kat xel a metti a metti na jag na waaye dafa bëgg nag waaye dafa bëgg yii di ñëw di ñëw yii di ñëw loolu nag bu ko waxee loolu nag bu ko waxee dañoo jàpp ni dañoo jàpp ni ku ne xam ne tamit weer wi jëm. fi weer wi jëm. kon néewul. kon néewul. nañu waajal nañu waajal àjjuma ji. kon néewul nañu waajal àjjuma ji. dafa wax ni dafa wax ni nañu waajal àjjuma yii di ñëw. ba keroog ba keroog. ñooy gis leneen bëgg nag mu bëgg nag. sëñ Sidi ak ñi mu bokkal ak liggéey bi. muy kilifa gi mu soññaat boppam mu soññaat boppam. soññaat ñëpp soññaat ñëpp. muy rak muy rak. muy doom mu di taalibe muy xarit muy xarit. muy wëllëre muy wëllëre. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. na jaajuwaat kat ndax lii kat fii mu toll tey fii mu toll tey bu ñëwee bu ñëwee da koy romb da koy romb bu ñëwaatee bu ñëwaatee da koy romb da koy romb kon moo tax kon moo tax sëriñ bi wax ni nañ soññeewaat nañ soññeewaat soññee goo xam ni day mel ni day doogal tàmbali liggéeyam ndax yëg na ni ndax yëg na ni liggéey bi liggéey bi fa mu jëm fa mu jëm wóor na ko ni wóor na ko nii yitteel na ko fa yitte wës na ko fa yitte wës na ko fa. kon bu sañoon lu ko nit ñi naw naw moom lu mu xeeb la. bu sañoon dey bu sañoon dey. ba fa wàccee ba fa wàccee. kenn ku ci ne. kenn ku ne. man caa jot man moom ëpp na foofu ëpp man rek moom lay def. mu bëgg nag mu bëgg nag. nii mu ko ànd ak yéen. ngeen jàppe ko noonu mu ciy ñaan mu ciy ñaan. suñu borom mu yegge noonu ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh ak maam Cheikh Fall. sëñ si wax nañ tamit fàttaliwaat na nga fàttaliwaat. ndax sëñ bi wax na ni ndax sëñ wax na ni. ajjuma ji jàll kat ji jàll kat yëg na ni yëg na ni ak soppeeku am soppeeku am na loola nag loola nag bu ko waxee boo ko waxee mooy lim ñuy digal mooy lim ñuy digal di ñu ko dénk di ñu ko dénk ñoo nga ca noo nga moo wax léegi moo wax léegi ni yëg naa ni kat yëg naa ni kat ajjuma ji jàll ajjuma ji jàll fabin wi fabin wi soppiku na soppiku na demin wi demin wi soppiku na soppiku na yegg gi yeg gi soppiku na soppiku na mu ko nañ ko wax bu ñëpp dégg ko nañ ko wax bu ñëpp dégg ko kon nag kon nag la mu digle woon keroog la mu digle woon keroog lay diglewaat lay diglewaat tey bu ñu fi bàyyi ko bu ñu fi bàyyi ko nañ yokkaat yar bi nañ yokkaat yar bi yokkaat teg yokkaat teggi nii yokkaat dal gi yokkaat dal gi yokkaat tamit yokkaat tamit ni ñuy doxalee ni ñuy doxalee ci tëli bi ci tëli bi ndax tëli bi kat ndax tëli bi kat am na noo xam ne am na noo xam ni bu ñu ko doxalee bu ñu ko doxalee dana indi jafe-jafe dana indi jafe-jafe jafe-jafe boobu te jafe-jafe boobu lañuy bañ ñun ñëpp la ñuy bañ ñun ñëpp bëggul bëggul ñu yéex a àgg ñu yéex a àgg ndax lii ndax lii dama bëgg nañ koy yut dama bëgg nañ koy yët teel cee jot teel cee jot kon oto yi kon oto yi dàqee ba ñu dàqee waaye ku jiitu waaye dox na dox ba bàyyi xel ba bàyyi xel te bàyyi xel te bàyyi xel ña ci sa ginnaaw ña sa ginnaaw war war a jiitu jiitu war war a topp topp borom moto yéet borom moto yéet nañ bàyyi bàyyi kar gi ñuy kar oto yi te dox ko defee bu ko defee bu yàlla defee jàmm bu yàlla defee jàmm nu teel a yegg kon sëñ si di nee na bi wax na ni sëriñ bi wax na ni liggéey benn bàyyi ko liggéey benn ko soññewoon keroog dimanche jàmm képp koo xamante ni jóge nga fii yitte jooj ñu waxoon keroog moom la ñu soññewaat tey ñun ñëpp nañu wax daje yitte liggéey bu góor jigéen mag mag ndaw ndaw bu ñu fa dajee rek bu ñu fa dajee rek ba dimaasaat ba dimaasaat lu ñu nekkaat lu ñu nekkaat lu ñu nekkaat ñëpp yëg ko ñëpp yëg ko waaye dimanche ji daal waaye dimanche ji daal nan dajewaat ca liggéey ba ñu defaat ñu defaat nan defaat defaat ko bu ñu ko defee bu ñu ko defee sëñ bi bëgg li sëñ bi bëgg lee mu am ko lee mu am ko bu ko amee rek te bu ko amee rek am ko ñu am ko kon sëñ si di nee na waaw kon sëñ si di nee na sant mi nga sant ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn fu waay jóge woon fu waay jóge woon mi ngi lay ñaanal mi ngi lay ñaanal àgg nga àgg ci jàmm bàyyi fi jàmm bàyyi fi jàmm romb ci yoonu jàmm romb ci yoonu jàmm barke maamam ci barke maamam ak Serigne Assane ak Serigne la إلا الله لا إله aflaha إله waaw kay mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant bu baax ak di leen gërëm si topp gi nga xamante ni yéen ñu ko topp démb ba léegi demaloon nañ leen fi nga xamante ni mooy njaareem kër sëriñ am di Fall moom seex Serif Assane Fall. wan leen la nga xamante ni moo fa xew ci wàccaay yi ñuy waajal ndog yi di ko indi fii nii si Touba ànd nañoo ak yéen biig si guddi si li nga xamante ni mooy la fa xew ci wàccaay gàtt yi ak li nga xamante ni lépp aju na ci ñam yooyu nga xamante ni dañ koy waajal waaye bi ñu xëyee itam teel na noo génn ànd ak yéen si waañ bi wan leen liggéey bu rëy bi nga xamante ni taalibe yi rakkam yi sët yi ak mbokk yëpp ànd nañ kook moom di ko liggéey ngir li lii nga xamante ni ñu ngi koy indi Sëñ Tuubaa mu mel na nga xamante ni moom la ko bëggee noonu la ñuy ànd ak yéen itam jëlee leen ka nga xamante ni moo yor kàddu kër gi di Baye Moustapha Seck waxtaan ak moom si jàmbaar jooju nga xamante ni nag tey bu ñu nee Serigne Amdy Khady xel yëpp dana dem ci moom muy Cheikh Serif Assane Fall lépp noppee ñu yàpp ko si oto yi ñu wan leen li nga xamante ni mooy convoi bi ñu jugee njaareem jaar si dëkk dëkkaat yi tàbbi fi nga xamante ni mooy Mbàkke jaar biir Mbàkke ba dugg Touba ambiance yi lépp gis ngeen ko ñëpp génn àndandoo di sant Serigne am Khady Fall te di ko ñaanal mu yàgg fi noonu lañu def ba agsi fii nga xamante ni mooy Touba fii nga xamante ni mooy résidence fii Serigne Mountakha Mbacké nekk jumaa ji ne nii suñ ginnaaw gis ngeen camion yaa ngi nii taxaw kon agsi nañu fii lépp la nga xamante ne waxoon nañ ko yéen def nañu ko wax nañ leen fépp foo xamante ni njabootu Cheikh Ibra Fall gi ña nga fa di togg ndogu danañ dem jëlee leen la nga xamante ni moo fi xew moo ñu yóbbu woon fi nga xamante ni mooy njaareem te moom lañ fas yéene ànd ak yéen ba koor gi jeex incha allah rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu